c'est quelque chose mm-hmm. qui se de génération en génération, génération. d'accord beneen bi mooy asma boobu nit mën na ko fa jëlee euh, loolu nag ci médecin bi nga xam ni bu ñëwee ci di suivre xale bi moo xam pédiatre bi moom moo mën a def ay interrogatoire ba xam beneen bi mooy asthme allergène bi ma lay wax mm-hmm. tey nit ki xale bi tey bu juddoo mën na nekk fi mu nekk tey moo xam mu juddu à naissance papaam di jëfandikoo lu ñuy wax cigarette di tux mhm. euh, xale boobu il exposé déjà parce que mi ngi nekk ci néeg papam di tux am na ñoom seen papa dañuy tux ci néeg wala ñuy tux yàmbaa moo xam xale bi di ko inhaler di ko nooy doolul tey tabac boobu allergène boobu xam nga dafa am lu ñuy wax tabac passif ak tabac actif tabac actif mooy nit ki di tux mais tabac passif mooy le fait d'en fumer nga exposé nit ki di ko xër merci xale boobu tey mën na ko ci jële mhm. euh, allergène bi mooy xale bi nga xam tey day nekk ci néeg yaay ji di bale ci néeg bi mu am ay moquette poussière bi di dugg xale parce que xale dafa sensible à la naissance xale bi di ko nooy donc nooy bu mu koy nooy allergènes yi parce que dafa am lu ñuy woowee mooy li ma la sànq allergène polarienne ak alcarienne ñett yooyu donc boo xoolee ci ay moquette ci rideau yeeg yooyu euh, alcarienne yi dafay am donc le fait que xale bi ñuy bale poussière boobu mën na ko dugg dugg ci bronche yi di dem di dajaloo lu muy gën di màgg mi gën a feeñ mi am ay gènes respiratoires ba foofu loolu mooy allergène allergie fu mën a génn bëri na donc loolu la ñuy wax asthme allergène. Mhm. Euh, allergie li koy joxe bëri na moo xam yaay ji mën nay jël cuuraay. Mhm. Hmm, di ko taal ci néeg bi xale bi di ko nooy di ko nooy boobu bu màggee mu indi ko ay jafe-jafe. Mhm. beneen bi aussi tamit am na ci xale li ñuy wax infection virale boo xam ni infection bronchiolite bronchiolite c'est-à-dire c'est une infection virale. kii di infection virale maanaam benn infection benn virus la boo xam ne tey xale bi bu nekkee maternité bu juddoo takk benn virus bi circuler dans l'air parce que ku nekk xam ne ni que ce soit les euh, les agents moo xam bu ñu agent agresseur mooy virus bactérienne microbe wala champignon xeet googu ñoom seen porte d'entrée ci doomu aadama c'est la bouche dans les aliments ou bien dans les plaies donc liir boobu bu juddoo ci matante bi nekk salle bu nga xam ne salle commune la mu génn takk yaay ji nekk ak moom mu juddu virus boobu mën nañ ko contaminer mode de contamination day wàlle moo xam ñu jël biberon xale bi jox ko wala benn affaire bi muy naane jox ko xale bi mën na ko jël wala day circuler ci salle bi virus boobu léegi virus boobu nag merci xale bi mën na ko inhaler à la naissance moo xam ñu joxe ko ci matin dafa sensible bokkut ak mag nga xamante ne euh, yenn yi mën na ko résister mais xale y a de yi nga xamante ne mënu koo résister donc day baax Euh, comme ni nga koy waxee. léegi nag moom laay leeral noonu yi surtout di def attention parce que poussière u mbedd. Mhm. poussière u moquette ak yenn bagages yi. si kër yi tamit dafay andi. mooy li ma lay expliqué noonu infection bronchiolite boobu noonu médecins yi xam nañ ko bu baax. xale mën na ko jël à la naissance virus la c'est viral infection virale la su fekkee xale bi am na ko ah bu demul waa kër docteur bu demee ci médecin wala docteur wala ci pédiatre bi bu ko traité mën na am chance ñu teel ko xam ci moom traité ko mu wér mais su fekkee xale bi dafa am infection bronchiolite boobu virale boobu à deux épisodes deux reprises yoo xam ni confirmé nañ ko moo bu boobaa sañ nañ confirmer ne l'enfant est conf il est asthmatique. d'accord mais deux répétitions euh, deux épisodes. d'accord mais docteur euh, xam nga ñu ngi expliquer asthme. Mhm. mais tey jii ñu bari asthme bu ñu ko gisee nan lañ koy xamee mooy nit ki di sëqat. suqat yu xaw wow loolu jàpp si dënn bi mhm. ñi naan dafa tooy ñi mhm. naan asthmatique la mhm. tey jii nii asthme carrément lan moo koy màndargaal physiquement waaw cause euh, loolu la ñuy wax euh, clinique clinique quoi waaw cause bon euh, kii cause clinique yi maanaam clinique boo ko déggee mooy li nga xam ni du appareil wala du rajo wala maanaam li nga xam ni physiquement merci moom lay nit ki di déclencher bu ñëwee ci docteur loolu la ñuy wax traitement symptomatologie c'est-à-dire que li nga xam ne moom mooy déclencher cause yi clinique yooyu c'est-à-dire que am na lu ñuy wax euh, chez l'enfant allergique yooyu tout tout chess maanaam tout dafa am tout gras am tout chess tout gras mooy sëqat bi génn mucus mm-hmm. sëqat bu woo boobu du sëqat di sëqat boobu la ñuy moom la tout chess suñu mag ñi di naan sëqat bi dafay aw dënn bi waaw tout chess mm-hmm. sëqat dafa bëri pàcc donc dafa bëri pàcc mais tout chess daal laa la mën a wax ci gàttal bokk na ci signes yi am na difficulté à respirer mooy comme li ma doon wax gêne respiratoire boobu. am na bronchi fatt yeeg euh, ñoom merci gêne respiratoire dis ne di fatt waaw parce que allergènes yi mhm. yi mu jël poussière yi mu inhalé ak polarienne alcalienne mooy fatt bronche mhm. muy am gêne respiratoire dyspnée respiratoire di fatt nit ki di fatt bokk na ci li ñuy wax aussi si symptômes yi euh, maanaam accélération euh, rythme respiration bi day accéléré comme tachycardie day gaaw am na fatigue maanaam nit ki moom xale bi day sonn après day sonn day feebal ku tayal sonn bokk na ci euh, les yeux qui piquent euh, qui maanaam bët yi day jam am na ñoo xam ni allergie ni mën nay jam seen bët xale di jam seen bët mel ni ki gratté wu di gratté wu di xasan bon aussi kii euh, pique kii gratte kii kuul la ne maanaam bakkan yi mën nañuy xelli parce que parfois da ngay gis ci kër yi sax benn yaay naan sama doom ji de docteur wala sage-femme bi sama doom ji chaque fois moom daal day soj da nga koy dégg ci yaay sama doom ji chaque fois moom day soj day soj rek bakkan yi daguma sax mais ñu bëri dañ naan euh, nit buy am bakkan yu coulé tout temps nee bi coulé dañuy foog ne dañ naan ko kii sinusite da ko yàpp mhm. te fekk na demuñu xool lan moo tax muy néeg bi di coulé ou mhm. parce que automédication bi ñuy wax aussi mhm. tamit dañ ko wax di bàyyi te Sénégal dañ koo tàmm waa léegi boo bakkan yi day coulé di xel yi donc tout temps mooy ñi nga xam ne ñu bàyyi ci xel naan sama doom ji day soj day soj day soj fekk xale mën na déclencher asthme as boobu mais yaay ji ko xam donc nag xale bi na bañ a am asthme tamit parfois am na lu ñuy wax rhinite rhinite allergie rhinite allergie c'est-à-dire que nit ki day couler bakkan day couler tout le temps wala bu amee poussière bu ko dugg wala dara rek day déclencher ay sëkkat bakkan yi di xel ci yenn xale yi mën na bañ a nekk asthme mu nekk rhinite allergie asthme am na mais rhinite allergie am na bakkan bi donc day couler Euh, mi am aussi gorge bi parfois aussi tamit euh, day day day wow comme ni ma ko waxee bët yi aussi tamit di xasan yooyu yëpp bokk na ci euh, éternuement bokk na ci jeûne respiratoire bi donc comme ni ma koy waxee ay ay ay ay c'est-à-dire que ay kii suffilant c'est-à-dire que boo dégloo boo jëlee li docteur di takk nga jël ko teg ko da ngay dégg affaire bi day mel ni comme genre ay cuuj ni ñuy kiiwee xaw ma naa ko mën a waxee ci élève waaw yu sew lay doon c'est criant quoi da koy dégg loolu waa kër docteur ñoom dinañ ko xam. d'accord mooy mooy li nga xamante ne rek. Euh, stéthoscope waaw stéthoscope mooy diagnostic moom la ñuy asthmatique bu ñëwee tak y a ce qu'on appelle l'auscultation dafa am lu ñuy wax les quatre signes physiques mm-hmm. physique du malaat mooy signe physique boobu da ngay jël alors ah, la ñuy taq docteur bu ko tegee rek ci biir bi takk bu dee as xale bi ñëw na urgence bu ko tegee moom mën na xam ni kii. am na asthme wala mën na am suspect. bien vrai que deful analyse examen paraclinique boobu. donc su ma la su ma la déggee bu baax euh, bu fekkent ne nit ki comme euh, aspect yi nga wax ni yëpp nag ni mooy. Mhm. physiquement et boo ko gisee moo koy souffrir nga koy gis ne mu ngi sëqat. Mhm. ay bakkan yu kule ainsi de suite. waaw mën nañ bañ a nekk asthme. parfois ci xale yi mën na nekk rhinite rhinite allergie. c'est-à-dire. rhinite allergie mooy li ma la wax xale bi nga xam tout le temps bakkan yi. day gaaw a di xel yaay ji naan dafa soj fekk du soj allergie la allergie nag dafa am lu koy déclencher les causes déclenchantes mooy bu ñuy boyal rek xale boobu parce que l'enfant il est tout le temps exposé xale bi mi ngi raam xale bi mi ngi foofu mi ngi dem ci kii mi ngi daw ci kii dafa sensible waaw léegi bu fekkee nag dañuy waaj a ataay di boyal furno xale boobu tak gis nga saxaar bi bu ko duggee rek day commencer déclencher bu toogee ba ngoon gi wala guddi gi rek mën na commencer di saqat bakkani mu xëy mi xel wala mu toog ci ay nijaayam wala dara ñuy tux donc loolu mën na déclencher allergie xale bi parfois mën na yor mu nekk ci moket bi di raam wala yaayam di julli wala maamam parfois da nga koy gis kenn di julli mu ñëw sa day julli fekk jullikaay boobu dafa am ay allergènes ay poussière mu noy ko taf taf ngoon gi wala da nga gis xale bi commencé waat bakkan di xel yi parfois ñu ne asthme fekk allergie waaw parce que xale ku nekk xam na ni à l'enf dans l'enfance la sa système immunitaire bi commencé di formé wu mm-hmm. moteur yi c'est ça qu'on appelle euh, le développement psychomoteur de l'enfant maanaam cër yi day commencer di former wu xale donc di dem di dem di dem donc am na loo xam ne bu ci duggee daf koy sonal mooy xale yi am allergie waaw allergène yi voilà aussi tam symptômes yi bokk na ci li ñuy wax euh, comme ni ma la ko waxee sànq sensation dépression au niveau de la poitrine donc parfois dënd bi mën na jékki-jékki comme gêne respiratoire yi di metti di metti mu koy jàpp dëgg dënd bi wala poitrine bi quoi dënd bi di metti donc respiration sifflante comme ni ma la ko waxee sànq ñun nooy ngay dégg xëq ne genre cuuj yooyu ci bruit boobu daal la xaw ma du ma ko mën a expliquer di ko dégg yooyu bokk na ci xam nga docteur doguma la mais tamit yombul tey jii ni nit euh, comme li nga wax ngay dégg dënn bi di mel ni ay cuuj yi fay sap et yow nit ki si jëm boppam koo xamante ne du médecin koo xamante ne yow xamoo si wàllu médecine dara yow mënoo koo xam donc est-ce que euh, baaxul yow sa doom bu amee yenn yooyu balaa ngaa jël di ko di ko jox ay yenn garab bi comme ni ñu ko tàmm di waxee dangay gis ni di sa xët ñu dem naan euh, asma la am euh, ay ay affaires yi nga xamante ne da koy faj dem ci kiw tradition bi dem jox ay garab olof yoo xamante ne mën na ko sa indil gàllankoor mhm. donc est gënul bu nit ki amee feebar boo ko gisee muy def dara nga dem ci kër docteur. mais ci dem kër docteur boobu noonu si euh, yi nga wax ni boo gisee sa doom am ko wala nit am ko fan nga ko war a yabal fi mu dem ñu ne ko carrément asthme la ou pas. merci beaucoup hmm, bu am solo sooy jàng ñun bi ñuy jàngal école médecin yi tout temps bu ñuy def cours pneumo sur l'asthme dañ naan la prévention asthme c'est l'urgence médicale nit kuy am asthme bu commencé def crise crise yi di déclenché wala yenn si urgence médicale la parce que asthme dafa gaaw a rey boo nekkee ci benn gox bi nga xam ne amul poste de santé wala moo xam clinique wala hôpital bu la jege xale bi def crise gaawal gaaw lu mu gën a gaawee nga yóbbu ko ko si docteur bi bu demee foofu dinañ ko mën a sofi Euh, defal ko lu ñu wax nébulisation am na appareil boo ñëwee ci hôpital yi bi ngay gis noonu ñu sampal leen ko nébuliser leen defal leen ay am na ay produits yu ñu leen defal ay bronchodilateurs yu ñu leen defal defal leen ay corticothérapie defal leen ko pour euh, inflammation bi arrêté ak euh, suufu respiration boobu ñuy am gêne respiratoire bi ba nga xam ne parce que produit yooyu bu ñu ñëwee daf ci am boo xam ni maanaam euh, benn bi allergènes yooyu nga xam ne xale bi da ko doon nooy mu koy fatt benn bi ci benn branche bi mucus yooyu doon doon ko fatt day dugg foofu fatt ko bloqué ko mooy bronchospasme donc produit yooyu ñu ngay gis ñu koy defal noonu produit bronchodilateur yooyu noonu ah day nettoyé da koy nettoyé ba mu set benn branche bi beneen bi tamit am na ñoo xam dañ koy defal injection fii am na benn piqûre bi ñu koy defal Euh, am na ay produits corticoïdes yoo xam ne bu ñu ko ko defalee euh, métit bi muy sentir noonu noonu noonu day dañ moo tax ñu ne la asthme foo ko gisee rek urgence médicale la parce que dafa gaaw a rey loolu nag docteur bi rek moo ko mën a xam mais du ci kër ga maanaam daal képp ku dëkk koo xam ne mi ngi am asthme bu moment bi muy développé ay crise wala nga gis symptômes yi ñu leen wax gêne respiratoire nooyi bi gaaw mu teyal ainsi de suite nu mu gën a gaawee oto bu fa nekk di ko jox ay garab phytothérapie ay garab olof Sénégal dañoo gis nit bi fatt ñu jox leen ko ndox wagaa wala ni c'est interdit en ah, secourisme premier soin nit di fatt nit ki fatt déjà nga jël ndox bugg ko jox wala garab loolu c'est interdit dañ koy tere nit bi fatt kenn du ko jox ndox kenn du ko jox garab yóbbu ko hôpital bu dee xale la ñu defal ko euh, ñu defal ko ñu nébuliser ko sampal ko appareil boobu soit tey bu dee mag la mhm. dañ koy yóbbu oxygéné ko defal ko oxygénation ainsi de ba pare nag doog a parce que loolu mooy l'urgence on gère l'urgence ba pare ñu soulager ko ba pare xool leneen beneen cause loolu nag ah domaine waa ko docteur la